ki ñu fecc taxa dajé di Abdoulaye djé def yi muy def yu baax mo waral tay ñu dajé yalla da fay wax ni képp ku def lu baax té bi ngoy def man ma tax imam sa yalla mo ñëk dund social mënon na bind guddii bayyi bëcëk ñu ñëpp ñu nekk ci guddii rek bëcëk do am waye def social mo tax mu bind guddii bind bëcëk bëgg su bëcëké tor suñ fay yàlla ne képp ku def lu baax benn ma fay la fukk Ablaay ci lu baax yooyu muy def nag looloo waral daje bi ñu ñaan yàlla yal na ko yàlla jàppale yal na yàlla dolli suturaam yal na yàlla taxawu ko taxawuñu ci barke yontu yàlla Muhammad yow président sa Seck yow président de la république monsieur Macky Sall dañu lay wax nela ñun fii la ñu dëkk ci Thiès bokk nañu it ci ñi nga xam ne bu dëkk bi amee problème dinañu jóg taxaw ngir mu dal ñu lay ñaan est bii nga xam ne ñun fa la ñu dëkk ak ñii fi toog joxal ñu ko président Ablaye Dièye Ablaye Dièye nag waxul ne ñu dem leen ngeen wax ngir nu jox ko ko waaye dañoo gis ne askan wi ñor na ko laata muy laaj itam am na lu mu jëf lu tax mu war a laaj te wax naa ne élection yii di ñëw du élection wax élection jëf la lan nga jëf ci gox ak goxaat yi ba war a laaj gox kon nag li nu bëgg mooy mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci daara yi mi ngi ci avec yi mi ngi ci association yi te kenn joxu ko benn ndomba tànk dëj mu ñëwal la ku am néeg bu daanu mu ñëwal la ku am ngénte mu ñëwal la ku am takk mu ñëwal la ku am soxla mu taxaw ca moom président Abdoulaye kon li Omar Deme wax ne dëkk bii dootuñu seetaan ñu ñu koy yàqal ndax ay citoyen lañ dëkkuñu Mali dëkkuñu Guinée Sénégal lañu dëkk cees lañu bokk ñun ñii toog nag amu ci kenn koo xam ne mën nañu laa jox lu tax nga wax waaye boo gisee lu tax nga wax qulil haqq walaw kaana murran walaw ala si kon yow président de la république dañoo bëgg sa liggéey defaru te ñun bokk nañ ci ñi ànd ak yow ngir gis nañ sa taxawaay waaye daal dañu lay ñaan élection gox-goxaat yii fii di est bi joxal ñu président Ablaye Dieye borom mouvement Siggi jotna. na. kon poids bi daal mooy ay kilifa lañ yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi te lépp loo xam ne mi ngi doxal dëkk bi ña nga ca te it am lu nekk suñu ginnaaw ci ay njaboot te bu leen waxee dinañ dégg incha beneen bi ci des dañ doon toog di leen seetaan ñu di leen jox te li lu bëgg duñ ko def cees Est lañu ñu waxagul ñeenti communes yépp bu ci nekk incha allah dinañ ko def parce que fu ci nekk am nañ fa nit koo xam ne moo ñu fa nekkal.